mériter au moins une sommation euh, d'une semaine au, minimum pour pouvoir se préparer de déguerpir. La sommation a duré combien de temps non, on n'est pas sommé. On n'est pas sommé. Le président a été convoqué par le, par le sous-préfet, qui lui a remis un arrêté du préfectoral, un arrêté préfectoral, euh, qui lui demande de déguerpir dès aujourd'hui dimanche à 10h. Vraiment, ça a été un peu surpris. Nous, depuis, depuis le déclenchement de cette pandémie, euh, c'est une, une garde exemplaire. Donc ce que nous décrions d'abord, c'est pas que cette gare ne doit pas être considérée comme une gare flottante. C'est une gare qui a été aménagée par le CETUT sous la tutelle du directeur des transports présentement, Cheikh Omar Gaye, C'est lui qui avait installé cette gare, aménagée, euh, goudronnée, électrifiée. Donc ce n'est pas une gare flottante, c'est une gare régulière. On est tous des citoyens sénégalais. On est tous conscients du danger de cette maladie. Donc nous ne sommes pas en position de réponse, mais nous sommes en position d'inquiétude des citoyens sénégalais qui ont leur outil de travail. Et que si un jour on lui dit que vraiment on va, on va vous déguerpir, vous allez tous perdre vos outils de travail, et ça pose problème. Fi lañ fi nek di liggéey di dimbalé di dimbalé di dimbale nit ñi parce que garbu bi garbu gaar bu mag boo xam ne zone bi yépp fi ne ni parcelle Grand yof zone bi yépp fi bi gaar mo fi nek comme gaar bu mag daanaka fii ne daanaka li muy li muy li muy li ci la par journée da fay bari Auto yi fi nak di fi nek li rangit fii fi fii ne daanaka fii ne lu mat ay presque 200 cent cars dañ fi nek. di fi xëy di liggéey bu ci ne ay ñaari voyage ay ñetti voyage ay ñeenti voyage ba ngoon jot kon boo loolu boobu mbooloo kenn xamul naa la toll ak ñi nga xam ne ñu ngi fi nekk di ay ay ay chauffeur ay ñoo xam ne nekk fi ci liggéey personnel bi fi di fi liggéey ñooñu boo xëyee benn bis rek jaw léeg nga bañu ñu loolu parce que li li ñu tegal suñu moom mooy dañ ne pandémie bi am fii moom mooy moom que jaxasoo ba ak affaire lañ bañ mais bu fekkee ne jaxasoo la rek fii ne bi ñu commencé fii li li mu commencé ba léegi kenn déggagul benn gaaru ceer bu am cas gaaru ceer amaguñ cas oto yi transport en commun yi nga xam ne moom la yoon dawal amagul cas gisaguñ ci cas cas yi feneen lañ ko gis mais gisu ko ci ñun te boobu ba léegi ñun na fii ne dañ ne urbain yi mën ngeen a daw mais à moitié seen xaalis bi ngeen di yem leen ca te li ngeen di yëpp ci nit ne doon genn wàll booba léegi duñu koy respecté buñ commencé ba léegi ñu ngi dem kon bu ñëwee ba bërki dem rek ñëw nañu da ngeen fiy jóge dañu dañu tëj li ñun xamuñu lan la fii ñu toll fi ñu toll ni ci wàllu wér-gu-yaram ak wàllu feebar bi nga xam moo ngi law mënantuñu toog

ñoom ñëpp ñu jox ñu ndigal pour ñun ñu ñëw démanteler lii def nañ ko gis ngeen gaaru ceeb bi fi nekkoon li fi daan daje ci ay nit doon loo xam ni jaaduwul wóorul sax lii ñuy def nag defuñu ko contre ñoom mais seen wér-gu-yaram moo tax ñu koy def parce que tant que cas yaa ngi toll 100 200 nit ñaa ngi faj mais maara di taali mu ñu sàgganee ba cas yi atteindre yenn nom yi mais structure hospitalière dootuñu leen atteindre et booba day daal di doy waar. na action mun xam ñàkk parce que aujourd'hui l'heure est grave il ñu def ko li ñu commencé tey. bu soobee yàlla fan yi néew di ngeen gis dañ koy continuer ñu ko nag ngir euh, bundu xataal askan wi waaye ñoom sax ñoo ci war a njëkk kontaan.